bisimillahi rahmaanirahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant euh, gis ngeen nag teewaayu Serigne Cheikh Mbacke mu Serigne Abdou Latif mu fas yéene am kàddu yoo xamante ni da koy jottali ci turu Cheikh Mahamadou Mountakha Mbacke xalif général di Mourides mu aju rek ci ajjumay tuuba ji nga xam ni ci la ñu jëm mu war a doon ñaareelu ajjuma ji ginnaaw boo xamante ni def nañu bu njëkk bi ci juróom-ñetti fan ci weeru Zulqaada kon dinañ ko déglu mu jottali ñu kàddu yi nga xam ne mooy kàddu kaddu mu Mouhamadou Mountakha ñu gën a waajaat laxasaayu jëm ci bis bi te fas yéene defe ko ni ko sëriñ bi digle. Hmm, bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. noo ngi dellu si di nuyoo nuyu bokk taalib yëpp ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ibn Cheikh Al Basir sonu lépp mooy dellu waa di santaan ñëpp. di di di di di di di fet di ko yasal ci ci taalibe yëpp rawaate nag barab bii ma jëm bii ma toog nii ak bii ma jëm mooy mi nga sant ñi doon taxawaloo ajuma ji yëpp jinu weesu muy ajuma yi Tuubaa yi rawaate nag daal Hizbu Tarqiyyah bii nga xam ne da ko teewoon seen loxo waaye nag mboole nag ay jawriñ jawriñ boole leen nag Cheikh Mamadou Bachir mu Cheikh Mamadou mu Cheikh Abdoul Khadr ne nañ dem ci moom waxtaan ak moom mu jiitu ci li ci liggéey bi waaye sëñ am surtout mu sëñ Chouaïbou ci taxawaayam ak ak ak ak ak ak pasteefam ak yitteem ju kawe ci lépp lu sëñ bi di yittewoo wax wala mu wax di jëm jëm tax yéen a jëm ci am ak taxawaay ba mun ngi koy sëñ bi di ko sant cant gu rëy lépp dañ ci dañuy tàmm rek dañuy dellusiwaat di sëñ sant sax maamul xaban mu sëñ fàllu ci alxuraan ji ak kuréel yi seqaloon liggéey bi yëpp muy muxaadamatul xidma baay baay faal yi ak ñëpp ñoo xam ne ñoo ñoo bokkoon daa jàpp ci bis bam ba yéen waaye cant googu nag noon nooy njëkk sant yàlla ba noppi noon yàlla tawfeexale ba doon nag Sëriñ Tuubaa santaat yàlla bi nu booleeg sëriñ Tuuba waaye santaat yàlla bi nu booleeg sëñ Muntaxa te sëñ Muntaxa def nu ay ay ay àndandoom ci liggéey bi def nu ñi muy wéttalikoo def nu ñi muy jàllale xel ndax li ma daan wax rek moom liggéey bi rek ay yitteem amul yenn yitte waaye nag ñun kuréel yi nga xam ne fu mu songeb liggéey fu mu jóge jëm ci sëñ bi wala fu mu jógee jëm ci xare ba moom day jàpp ne bu ànd moom li mu bëgg ci xare bi dana ko am muy ndam li mu bëgg te bu ne ayca yàlla dimbale nu ne ayca topp ci moom ba lu mu ca am ca ndam noonu noo war a sant sëriñ bi noo war a sant suñu borom ñoo am tawfeex ji sëñ bi nag wax ne moom moo toogoon xalaat ne dana war tal dara loolu sëriñ bi mu bëgg fon toll du yëngu jëm ci sëriñ bi waaru daanu waneen waar ñu soof waneen waar bañ ko tal ba nga xam ne suñ dara du génn sëriñ bi sëriñ bi rek mooy nekk ci kanam suñ kanam moom rek la ñuy dëgmal moom rek la ñuy xool ndax sëriñ Muntaxa dafa am tafeeku sëriñ sëriñ Tuubaa am ni mu lu suñ borom ba mu ba léegi mësta dal dara mësta gëstu dara mësta ñooti dara waaye lu mu bëgg fekk na ko fa mu nekk naka jekk ba muy toogut fi mu toog loolu daan loolu loolu wax ne xëccoo moom du ko def ndax ci sëñ bi rek la am yitte waaye lu yitte boppam sëñ bi defal ko kon moom ba naka jëkk daa jógal ak cant te jant gi mos saa jóg bii muy yore liggéey bi sëñ Tuubaa bi itam sëñ Tuubaa gàtt na gàtt na ko ak ba ñëpp ñu mbokkal sëriñ bi te ñu mbokkal sëriñ bi nag man nañ ko waxee noonu baat boobu mënuñu ko ñàkk a wax man wax kon dañ jublu njabootu sëñ Tuubaa gi waaye ba nañu mbokkal sëñ bi it taalibe bi yëpp la ñuy wax ndax taalibe bi yëpp noo bokk sëriñ bi waaye ñoo bokk moom ak bëgg te moom loolu lay wax te léegi rek laa ko ci daayira yi naa leen sëñ Muntaxa moom xolam daa sedd xelam daa dal ndax genn bëgg la am te xam ne bëgg googu bëgg bokk na ko taalibe bi yëpp bëgg la nañu ko ba tax na moom ak cant rek la dese muy bëgg sëriñ bi rek bëgg yitte sëriñ yitte sëriñ bi di yitteem liggéey bi sëriñ bi di di di di di liggéeyam amatul jeneen soxla amatul amatul jeneen xalaat amatul jeneen wax jurul liggéey bi rek liggéey boobu nag su borom nangu duñ ci defee mu am ba noppi sëriñ bi nangul ko tax na fu mu toll lu yàgg liggéey bi rek lay xalaat waaye nag alhamdulilah fu mu ko yàggalee fu nekk bu ay ayca ñëpp ñu taale bi ne ayca ba nam ko bëggee mu defee ko moo tax mu toogoon ba bëgg nu delloo lépp sëriñ bi ba boole ci liggéey bi ajjuma yi tuuba yi ndax suñu borom da ko defal ak tawfeex ak xabul mooy lum dugg rek am ci tawfeex te bu ko def ba noppi ñu nangu ko ndax kooru Tuubaa gii ba koy tàmbale ba mu doonee Sëriñ Tuubaa di di tàmbali ñu dundal ko dundal ko ci dëkk bi booba de noonu njabootu sëñ Basiru jaaxle woon nañ lool ci bu demul njaareem nu muy demee waaye moom caaloon na wax ne njaareem ñoo ko fay nekkal da dañ nañ ci sëkk kenn ko ne mën na ko taxaw sëñ Tuubaa nag la bëgg a def ci dëkk bii loo xam ne bisu tet mu doolil ko la fi nekkoon kenn ku ne xam na ne doolil na ko koor gi la fi nekkoon ndax njàng mi ñu fay jàng bis bu nekk bu takkusaan jotee ba timis loolu loolu waaye àgg na ci mënu faa ñàkk ndax njabootu sëriñ Tuubaa gépp taalibe yëpp waa Tuubaa ñëpp kenn ko nekk àgg na ci waxtu woo jotee waxtu woo rek mooy seen yitte noonu la defaat nag ba xalaataat ajjuma yi Tuubaa ajuma yi Tuubaa yi itam bëgg rek xam na ne ñoom dafa dégg sëriñ bi bu baax a baax xam na ne suñu xam na ne yëwu suñu borom du jeex xam na li sëñ li ci sëñ bi fàgg du jeex kon nag wutin wi rek la ñu warta yemale dañ ko war di yaatal waxtu wu nekk di ko tasaari waxtu wu nekk bañ yaatal dara moom moo tax mu ne ajuma yi Tuubaa yi ajuma nag alhamdulilah bu nu sax dee ajuma ji jàll man noo rafet la njort ci ajuma yi ñëw ndax day ni mu yéene awe yoon ni selle ñi ko seq ñëpp kenn ku nekk muy sa yitte ba mu am aween wu sell wu dal wu teey xaaj bu ci nekk dañuy jàkk jàpp ne lañ lañ nekkoon rek doyoon na bis ndax Hizbut Tarqiyyah gi ma nag nañ ko taxawoo te sëñ bi moo waxoon sëñ Yuusu ne ko nga taxawal ma bis bi ne ko liggéey baa ngoog sëñ Yuusu def ci yitte ju mat ju kawe ju yéeme mu yaboo ne nañ dem ci sëñ Amsatu ndax bis bu koy wax xasida yi lañuy njëkkee te xasida yi ku ko wax sëñ Amsatu nga bàyyi ko xel ndax da ci am xaalis boppam ci li sëñ Muntaxa waxoon waaye sëñ Amsatu yi yëm ci def ak taxawaay ba mu taxaw ni mu rafetee ba bis ba ni mu rafetee ci xasida yi kenn mësu ko gis yéem na ñëpp sëñ Maodo Xabaan mu sëñ Fàllu noonu la taxawoo mbirum alxuraan ji ba alxuraan ji yaatu lool jumaa jeeg lu ko wër lépp fees dell ñu xëy di jàng ba ngoon Baay Faal yi noonu la leen joxe sikarulaa bi nga xam ne ñetti waxtu yi mu leen waxoon nañ ko sikar bi muy jeex dañoo ta dañuy tàng rek mu jeex ñoom buñ ci amoon vingt-quatre heures bi du leen nañ kon te bari këri sëñ Tuubaa ni ma ko waxoon yi wër jumaa ji yëpp ñu dundal ko kër gu ci nekk ba nga feesoon del ci la ñu waxoon ndax ñu ko tàmbalee ci kër sëñ Fallou te base isbu tarxee ba nekk fa ñu jóge bi teg ci kër sëñ Abdou nga xamee ne fa la seen nekkoon ak ak ak ak ak kuréel xasida wi ñu dugg ci kër sëñ ab kër nga xam ne sëñ Muntaxaa ci boppam fa la nekkoon ñiy durus nekk fa ñiy bind nekk fa ñu mu fees dell ñu di ko ba noppi noonu lañ demee kër sëñ Mbakke Madina ñu yor xasida yi ñu yëkkati nekk fa ñu dem kër sëñ Ibra Mbakke di kër sëñ Naam Atta ak isbu taaxe daa xulos nekk ci diggante bi ñu dem kër sëñ Saliou mu fees sax dell ak ñu ñu kuréel yu jàng ñu dem kër sëñ Mortala ñoom it ñuy soxna yi nekk fa ñu dellusiwaat ba kër sëñ kër sëñ Abdou Borom dër bi sëñ Mouhamadou Habib nekk fa wàcca wàccaay bu mat sëkk dana it kër sëñ Baara noonu la demee woon moo doon cummikaay yi Baay Faal yi kër sëñ Abdou Khadir noonu la feese woon li ma bëgg wax mooy sëñ bi li mu bëggoon lépp da ko am ba mu koy ñor xam ñëpp dañoo yëngu ñëpp jóg ñëpp taxaw ba lépp fees lépp lépp rek dal sëñ sëriñ Moustapha Mohamed noonu la ko waajale woon te tewul waa wilaya ak kilifa yi ñëpp noonu la ñu waajale kon ñu xam ne kuréel yi kenn desut ñëpp taxaw ne nañu war a taxawee sëñ bi nag ne kon da di sant jaajëfal leen kañ leen ba noppi ci la weesu ndax lam ko bëggoon am na ko ba mu kawe njort waaye nag waxam yi ma waxoon te ñuy tàggoo ñu bari dégg nañ ko mooy wane waat sëriñ bi rek wane waat yoon wi rek bëgg ñu dem rek yàlla ko yàlla fe àggal yéenam ci noonu ba ni mu bëggee nu doxee ni nu bañ a sal dara bañ a yitewoo darul sëriñ bi loolu nekk ci noonu noom yëg googu ak pas pas boobu noonu nag sëñ bi la bëgg booy gannaaw bu ñu leen kañee nag nu mu wax ne nan waajaar nag ajuma ji ñëw kenn ku nekk xam nga na nga ca taxawoon xam nga na nga woon na nga fas yéene bu ajuma ji ñëw ñëwee nga nga ko ndax bu ma jógee fii ma toog ci sëñ Amsatu laa bëgg a dem waxaat ak sëñ Yuusu mii na waxtaan ci waajtaay bi nu mu koy waajee na mu koy waajee waat kon ñu jokkoolaat loolu leen koy defee waat ndax sëñ bi ubbi na buntu ba yomb na ba noppi léegi ginnaaw loolu defoon mu aw yoon moom na nga ko defee rek xanaa kay Pastef boobu yàkkale rek moo ca des te Pastef bi sëñ bi def na ko yoonoon te ndax la sëñ yëpp laa waxoon ay murid lañu doon te duñ ci ay murid ay saadex lañu doon loolu mooy moom moom sëñ bi def lan defal nanu ko sëñ bi daal defal nanu ko bam nu nangulee rek na duy mari lan doon lay saadix la laan daa di am pay la ca way wax tuuba li abdil muridin saadiqin lahu moo nag ci la koy maye nag mooy baxit bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaat te loolu lépp dafa feeñaat ci aju ajuma yi donte ci la murid yi da itam ajuma yi ndax na ci tey feeñ ay xewal ay xewal yu andi kenn ñëpp la yem man ñu ko doon joxewaat ci nag yëpp la yem ñun lépp nag sëñ benn ci doon liggéey te na doon nangul wanoon nañu liggéey waaye lépp nag muy jaar ci Cheikh Mamadou Mountakha kon nañuy delluwaat di ko ñaanal mu yet subam doolu ko kattan ak ko wér doolu ko aw fanam doolu ko doolu na ko fa bàyyil mu jiitu won yoon wi ñu topp ci yoon wi demee ci yoon duna am fenn soxla duna am fenn jenn yitte ñu topp ci moom rek ndax moom xam na fa mu xam na fa mu jëmee fa mu jëm ci sëriñ bi fa mu jëm mooy am nga gërëmul sëriñ bi xam na ko te ma nga taxee te mi ngi nuy mi ngi nuy ñoddi nan ci jëm bañ am jën seen soxla bañ am jën yitte kon nag sëriñ si ñuusu kàddu gaa nga noonu nga yàkkali woote bi yàkkali cant gi yàkkali wàccaay bi bisimilah ne ko nan ko defee ne ko sëriñ bi bëggee kon li bëgg lépp teegal ak ni dañ ko am ndax li ñu bëgg lépp mooy ngërëmul sëriñ bi rek wax naa ko léegi ci ab daayira ne leen ngërëmul sëriñ bi mooy ngërëmul yàlla te sëriñ Mountakha dañuy wax ne gaa yu baax yi dem ajul taxul ni jaamu yàlla am ngërëmul yàlla moo leen tax jaamu yàlla te loolu man sama xam ci dañuy wax ne ajjana ni muy neex neex bis bi ñuy gis bi gis suñu borom moo ca dàq kon nag lay tax ñu gis suñu borom mooy radiyallahu anhum wa radu anhum ngërëmul yàlla li ñu am doo doo doon mën a gis loolu nag nu ngi koy nu ngi mën a am nun ci am ngërëmul sëriñ bi sëriñ bi yombal la lépp jàppal na lépp kon nag seetaan sax mënu ci am yoon seetaan ne mënu ci am yoon ndax sëñ bi moo waxoon ne aya sa mini laaw indi jabari iblisa moom eh, su moom daqal na ko iblis ak lu aju ci moom waaye nag iblis doon naaw ko nit duñ ko naaw dañuy fagu rek fagoro rek takku rek dox wuti sëñ bi bañ a xool leneen te wuti sëñ bi nag jëm ci yàlla ni ni ko xool sëñ bi gàttale jëm ci sëñ bi ni la ko roy sëñ Muntaxa di yombale nan nan nan roy sëñ Muntaxa ji lépp ko yow a ngi noonu yàlla nañu ci fekk te musal nañu ci ah, ci ci gàllankoor ban àgg fan defal nu Sëriñ Muntaxa yéene nu jot ca jëriñoo ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf sëñ Cheikh ñu ngi lay sant euh, cant koo xam ne am na fu mu tàmbale waaye amul fu mu yem ndax euh, sëriñ bi bi mu nu yow ànd ak yow bis bu set ñuy yëg dafa mel ni li ci nekk ci ay tawféex ak i noflay kenn xamul du mu toll ndax ñeewante gi ak bëgg gi bëgg nu dem waaye yàlla na la sëñ Touba fayal boppam. Mm-hmm. Euh, bis yi ñu génn nag muy ajumay Touba euh, dafa doon bis boo xamante ne wammatuk Serigne Touba la ndimbalal Serigne Touba la loo xam ne Cheikh mun Mountakha moo tax ñu jot ci ndax li mu ëmb ci lu baax kon yal nañu ko yàlla fayal moom Serigne Mountakha wax nga ko lépp loo xamante ne mooy tax ñu am ngërëmal Serigne tubaa moom moo ko gën a xam ndax moom digganteem ak Serigne Touba dara dox ci. xam na ko xamin woo xamante ne lu mu ñu joxoñ rek la ca nekk ci biir boo ko doon firi danga nga naan wala taj xalan xaa zaata limtilaayi nuuran wa rahmatan bi lantihaayi yal nañu ko yàlla fayal bis la boo xam ne kon lim ci wax li ci gën a rëy mooy cant gi mu sant dongo yi cant gi mu sant jiital ci njabootu Serigne Touba gi daal di seere ne Serigne Touba dëggu na ci ñun loolu mu seere nag euh, xajul fii sax ci àdduna ndax kàddu sëñ Muntaxa da nga koy firee wa yawma nabxasu fi kulli ummatin shahidan alayhim moom kon bu ñu seeralee ne sëñ Tuubaa dëggu na ci nun kon nañ xam ne suñu mbir dina yëwén tey dina yëwén ëllëg li ci des rek kay xanaa mooy ñu xam ne yàlla suñu borom bu dimbalee as gor euh, dara dootul nekk ci boppam lu dul laxasaa yi ngir sant ko ndax euh, cant gi rek moom ngay deseel suñu borom cant googu nag sëñ Touba dafa am lu dox suñ diggante ak moom loo xam ne ajumay Touba nii ñu laxasaayoo woon nañ ko yeesalaat li tax ñu war koo yeesalaat mooy bis bi dafa am loo xam ne ci suñu xel ci la war a dem mooy teraanga yi ñu suñu borom teral sëñ Touba dimbali ñu defal nu loo xamante ne mënaluñ ko suñu bopp li ñu war fi ñu toll ni kon mooy kenn ku ñu ne la nga mën bul ca bàyyi dara ndax boo gisee alxuraan di wax uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum loolu moo tax ñu di ko wax as gor suñ la teralee da ngay wëlbati ko xam ne am na lu la war sëñ Tuubaa dañoo fàggul euh, taxek tey ak taxek ëllëg kenn ci nun koo xam ne mën ngaa yëkkati sa loxo ne dama ko liggéey amut sëñ Tuubaa fàggul ñu ko sëñ Muntaxa wax na ko nee na lu mat a faggu faggu na ko te juboo na ceeg boromam lu mat a ñaan ñaan na ko te boromam defal na ko kon ñun bu ñu sëñ Tuubaa wëlbatikoo am yitte ci ñu dundalal ko ak ajjumay tubaa loolu na doon suñu yitte moo tax kàddu yii sëñ Cheikh wax daal di seereel ak cant daal kañ njabootu sëñ Tuubaa gi ci ni ñu moom kañ taalibe sëñ Tuubaa yi ci ni nga xamante noonu lañu ñu takkoo loolu ñun. amuñu seere soosu amuñu lu ko gën a rëy ci àdduna amuñu lu ko gën a rëy ca fañ jëm kon yàlla na sax nun nag kon li ci des mooy mboolem ñi mobilisé woon takku ñun ñëpp nañ ñaanal Sëñ Muntaxa mu yàgg fi te wér te ñu xam ne euh, yëf yi kenn desul man ñemewuma sax di lim waaye bu ñu tuddoon sëñ xabbaan rek da ngay mel ni tuddaale nga mboolem ñi doon jàng alxuraan sëñ sëñ sëñ Cheikh wax na ko bu ñu tuddee mu xaddimatul xidma tamit tudd nga jumaa ji tuddaale nga mbooleem ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey ak di taxaw euh, liggéey bi rawatina ajjuma ji bu ñu tuddee tamit boo xoolee daayira wilaaya wala nga tudd sëñ xamsatu bi nga xamante ne bu ñu tuddee xaside yi moom ñëpp xam nañ ne def ci am xaasu boppam man moo tax nee naa ko ba ma sëñ Muntaxa waxee ne xaside yi luñ ciy def dafa mel ni suñu am satu la ñuy dimbali loolu kon day cër boo xamante ne la ko ko may ne ci ab liggéey ba suñu borom metteel ko ci loolu moo ko may kon loolu cëru boppam la waaye tamit xoolal tey jii euh, ni dong yi mobiliser daayira yëpp kenn desul bu dee set setal bi bu dee waa sonorisation bu dee ñu yor baas yi kenn ko xam ne téye nga li nga yoroon amut waaye doyul sëñ Moustapha euh, sëñ Moustapha Mouhamed sëñ Moustapha Ndiagne mobiliser njabootam nga gis euh, ahibayil xadim ni ñu ni ñu baasee mobiliser wu di jàng xasida doon ñoo xamante ne kenn koo ci ne boo xoolee ak sa morom da nga naan bis bi taxawaay Arafat rek la sa xel di dem te li ci dàq ci bis bi mooy taxawaayu njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall muy tudd tur yàlla bi ñun muy ñoo xamante ne ni ñu takkoo booy sol booy xool image rek nga daal di xam ne ñoom mooy listixaaru bis bi da ndax zikru wala zikrullahi akbaru moom bañ ci bañ ko jëlee rek ci nga xam ne bis bi moom am nañ ci ndam loolu kon ñooñu yàlla nañ ko yàgg ànd ak dul mun Muntaxa ak euh, jëwriñam ju mag ji si am di Moodu Mbend yàlla suñu borom bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu yàgg jëfe Cheikh ndigalal Cheikh Mamadou Muntaxa te ñu yàgg ko ànd ak moom waaw nga gis ñam yi kenn ku ci ne yaa ngi togg di indi kenn desul kon defe naa bis bi suñ doon bëgg a tudd wala di sant euh, kallat mi daa waa wa kallat lamtira xalama kenn mënu ko tudd ba tudd ne dinga nga sant ñëpp ni nga ko war a defee loolu doyut bis bi day bis boo xamante ne dafa laaj sécurité muy loo xam ne protection civile am ci wàll sëñ Cheikh Mamadou Bachir mi nga xamante ne moo yor kàddu sëriñ bi daal di woo gouverneur joxe euh, gouverneur joxe ndigal préfet ak sous préfet ñu mobiliser lépp luy commandement territorial bi ñu jàpp lañu ci liggéey bi muy police ñu gis ni ñu ci taxawee muy wàllu sante muy waa muy waa sapeur muy ñi nga xamante mooy mooy service d'hygiène kenn ko xam ne des na amul loolu nag day taxawaay yu rafet yoo xamante ne moom defe naa tudd ko ngir santaat suñu borom ci lim ñu may mooy xol yu ànd bokk doon benn loolu ndimbalal yàlla la kon sëñ Cheikh ajuma dii di ñëw incha allah lépp day yokk ndax mbirum sëñ Tuubaa amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am te it ndigal rek lañuy déglu la sëñ Mourtala moom Cheikh Mamadou faadal wax sëñ bi loolu mooy dëgg kon sëñ bi lu mu wax dinañ ko def bu ne woon ajjuma yi at mi yëpp nañ ko def it dinañ ko def ajjuma yi at mi yëpp te kenn du sonn kon moom ñu moom la ñuy déglu ndax duñ ko jiitu ci dara waaye nañu wóor na ko wóor ne yoonu murid yëpp mobilisé nañu ay soldat rek lañu waaw kon bis bi yàlla nañ ci àgg jàmm te moom Cheikh Mamadou Mountakha yàgg koo woote yàgg ñoo digal ñu yàgg koo jëfe da ci ngërëmal sëñ Tuubaa tey asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf kon ci kàddu yu soññe yi am solo yooyu tukkee ci sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou Latif ak sëriñ Youssou Diop jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacke euh, muy soññewaat ci bis bi nga xamante ni ci la ñu jëm muy ajjuma ji ñu jëm ajjumay tubaa doon ñaareel gi war a doon fukki fan ak juróom ci weeru digg bi ñu nekk di dëppoog ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mai atum 2024 euh, ñu gis ne itam bis bi ni ko waa Touba defee te sëriñ Youssou leeral ko léegi ak sëñ Cheikh ci mboolem jumaa ji ak li ko wër ak barab yi penc yi noonu it la yaatoo fu ne fu bokki taalibe yi ne ci biir réew ba ci bitim réew euh, soo soofu nañu ci ajjumay Touba ji dundal ko ci ndigalu Cheikh mun Mountakha loolu itam ñuy séentu ne luy yokk lay doon ci ajjuma ji ñu jëmaat kem ni nga xamante ni la seriñ bi euh, joxe ndigal li kon nag ñu fabu laxasaayu jëm ci ànd ci yitte ak pas-pas fas yéene sàkku ci ngërëmal Serigne Touba am ko ci tey ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi lool ci ànd